et retrait pour Pogba. Tir détourné, mais le cuir lui revient en ouvrant son pied gauche. Il méduse Subacic et donne deux buts d'avance au bleu. À la 65e minute de jeu, but encore pour la France, but de Kylian Mbappé. L'affaire semble dans le sac 4 buts Trois minutes plus tard, quelle bourde d'Hugo Loris qui voulait sûrement se faire remarquer et se faire montrer est contré par Mandzukic 4 buts et on en restera là. Quel match Les Bleus son champions du monde 20 ans plus tard. Désormais, une deuxième étoile sera floquée sur le maillot tricolore. Bravo aux coéquipiers de Rami, Dovin et de Mandanda. Les Croates n'ont pas démérité, mais l'équipe de France est meilleure et champion du monde. Pour rappel, Luka Modric est élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde, suivi d'Eden Hazard et d'Antoine Griezmann qui ferment la marche. Harry Kane est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, suivi d'Antoine Griezmann et Lukaku ferme la marche. Meilleur gardien de cette Coupe du Monde de Russie 2018 nommé Thibaut Courtois de la Belgique. Russie 2018, KSTV. Coupe du équipe bi nga xamante ne mooy waa France ñoo doon tase ak waa Croatie mu nekk match bu neex lool ni mu tàmbalee neex lool ñi nga xamante ñoom ñooy waa Croatie boo xoolee ñoom sax ñoo dominé match bi yëpp sonal lool ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bleue bu waa France waaye ba ñu fubalee ba dix-neuvième minute nag but contre boo xamante ne Antoine Griezmann la jóge ki ne moom mooy attaquant wu Juventus de Turin bi daal di mbëkk bal bi ci cukkeelam mu daal di romb dem mu doon but boo xam ne ndax góolam bi di subat ci mu doon benn bal ci dara pour équipe bu France bi ba mu amaat yeneen fukki minute nag ci la équipe bi di Croatie égaliser ki ñuy wax Strinić ci moom moo joxe remise de la tête ñi nga xam ne ñooy défenseur France bi mu doon benn bat ku nekk dugal sa sa morom benn bat ba ñu fubalee ba trente quatrième minute nag ki ñuy wax Perisic ci moom mi nga xam ne moo égaliser pour Croatie nduru ne dafa laal bal bi ak loxom arbitrage vidéo daal di woote ñaari minute lañ ci teg kii di arbitre bi daal di woote France kii ñuy wax Antoine Griezmann jàkkaarloog Subasic daal di di jox di ubbi dóor bal bi mu mu doon ñaari but yu ñu xam ne devancé nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñooy équipe bu bi ba ñu footballee nag ba soixante nag équipe bu France bi nekk yaakaar kanam a kanam ndax ki ñuy wax Kylian Mbappé moom moo jël bal bi daal di ko dugal mu doon ñeenti bal ci benn pour équipe bu France bi waaye ba ñu fubalaatee ñetti minutes rek lañ ci teg nag ki ñuy wax Hugo Lloris daal di maye maye bu rëy bëggoon wane boppam bëggoon wax ne moom it ci match bi la bokk di jéem a ci di Mandzukic Mandzukic daal di koy contrer bal bi dugg mu doon ñeenti bal ci ñaar match bi nag foofu la yem ñi nga xam ne ñooy équipe ni équipe bu bi Tovin ñoom démérité ndax def nañu coupe du monde bu baax ñu fàttali ni kii di Luka Modric moom la jox meilleur joueur coupe du monde bi ki nga xam ne nag moom mooy Harry moom moo nekk meilleur buteur coupe du monde Russie bi kii di Antoine Griezmann topp ci ki ñuy wax tamit Lukaku moom moo tëj caaxi ki nga xam ne nag moom mooy góol bi nga xam ne moom moo gën a xarañ ci coupe du monde ñu ngi koy Thibaut Courtois di góolu fële KSTV